info tv mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew euh, tey nag dafa am loo xam ne dañu leen ko bëgg euh, leeralal ndax xam ngeen ne 16 mai bi passé euh, la chambre criminelle ubbi lu jëm ci wàllum àtte dossier Adji Sarr Ousmane sonk àtte euh, bi sax dañ koo mujj dàq ba 23 mai keroog nag ci tribunal bi euh, naam Ousmane Sonko ñëwul waaye comme li ngeen ko xamee Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon bi euh, salon Sweet Beauté Adji Sarr ma dafa doon liggéeyee te tuumaal Ousmane Sonko docteur Alfouseynou Gaye gynécologue bi def certificat médical bi. capitaine Omar Touré mi nga xam ne moo njëkkoon a yor enquête bi ñoom teew nañu léegi nag dafa am lu ci ñu bari di laam-laamee ak di wax ndax ci biir tribunal bi dafa am foo xam ne fa la ñuy projeté ay vidéo maanaam benn genre écran boo xam ne euh, fa la ñuy teg ay vidéo maanaam projection euh, vidéo loolu nag dafa am ñoo xam ne euh, dañ ko photo naan fii la ñuy teg euh, vidéo Adji Sarr Ousmane Sonko loolu ci lañ bëgg indi ay leeral beneen bi aussi euh, maître Moussa Sarr avocat Ndeye Khady biñ dàqee procès bi moom dafa bëggoon ñu dàq ko gën gaa néew daal fanweeri fan walla wala cinq jours ndax ñoom ñu mën a càmbar dossier bi ndax nee na bëri na ay page bëri na am na am nay audio am na ay vidéo loolu si lañ bëgg indi ay leeral pour ñi nga xam ne xamuñu euh, mën a xam naturellement loolu moo mës a am tribunal ci yenn àtte ndax day am atte yoo xam ne day aaje projection vidéo ndax tribunal dafa am ay technicien spécial ñoo xam ne ñoo yor wàllum sono bi maanaam sonorisation ak ñoo xam ne ñooy yor wàllum euh, projection de vidéo yi léegi nekkul lu bees euh, ku yàgga dem tribunal yenn àtte yi xam nga ne Euh, fu ñuy projeté vidéo du lu bees ci ndax bis bu set ñoo ngi àtte loo xam ne dafay aaje projette ay vidéo ñi ñi doon dem àtte imaam Alioune Badara Ndao gis ngeen ne projeté nañ fa ay vidéo ay vidéo quarante minutes ndax euh, boobu am nay xutba yu Alioune Badara Ndao def am nay film yuñ gis portable am ordinateur portable am day aaje projet ñu projette ay video tey ma jox leen benn exemple tey bu doon tey par exemple kenn dafa yor magasin walla kenn dafa gaare otoom ci buntu këram mais buntu kër bi am na caméra de surveillance bu dee sàcc nañ oto bi dem walla dajj nañ magasin dem te mu am caméra de surveillance ki nga xam ne moom moom caméra de surveillance bu dee saisir na yoon yoon day ñëw exploiter caméra de surveillance bi su porte plant les caméras de surveillance boobu nag bu ñu ko exploiter ba gis ci ay nit nit ñooñu bu leen yoon jàppee dañuy jël vidéo boobu projeté ko ci biir tribunal bi mën naa weddi na du man mën naa am ñu ne ko yow kii amul luñ ci nattable yow la ndax gis ngeen ne am na benn tiktoker yàggul Euh, bëgguñu tudd turam boo xam ne dafa demoon ci euh, Louga dem ci ay butigu jàmbur ngeen gis ne caméra de surveillance bi wane na ko mais caméra de surveillance boobu vidéo yooyu day aaje léeg-léeg ñu koy projeté par exemple ak yeneen ak yeneen maanaam pour vous dire que du lu bees léegi nag bu dee ci kaawu procès Ousmane Sonko c'est normal mu am ay vidéo mais buñ ne leen ay du vidéo rek du caagi ne vidéo bu Ousmane sonk ànd ak Adji Sarr aji saar vidéo yi mu def moom def ay conférence de presse mais vidéo yooyu avocat Ousmane Sonko mën nañu koo jël jébbal ko yoon ndax mën naa nekk vidéo yoo xam ne li Adji Sarr wax fii ak li mu wax fee dafa weddi boppam ay audio yu Adji Sarr wax tamit ak nit ak nit wala yi mbay MC Niass versé loolu ay audio lañu yoo xam ne avocat yi Ousmane Sonko mën nañu koo jël jox ko juge bi léegi tamit Ousmane Sonko moom tim te kon video yooyu Adji Sarr def ay conférence de yu bëree bëri Maître El Hadji def ay conférence de presse yu bëree bëri Ndeye Khady Ndiaye def ay sortie wax ci dossier yooyu yëpp day aaje ñu projeté ko na ko yow yaa wax ci vidéo bii lii mais ci beneen vidéo bii lii nga ci wax bu ko defee du ko mën a weddi Euh, tey Ousmane Sonko dafa def ay conférence de yu bëree bëri mais avocat yi Adji Sarr aussi mën nañoo jël conférence de yooyu nag Ousmane Sonko yow conférence de presse bi lii nga ci wax conférence de presse lii nga ci wax maanaam par exemple docteur Alpha Seynou def na benn sorte mën nañoo jël vidéo boobu projeté ko naka ko ci vidéo bi lii nga ci wax wala ñu ne ko yow aji Sarr vidéo bi lii nga ci wax te enquête bi. enquête préliminaire bi lii nga ci wax wala ci kanamu doyen des maanaam lii nga fa wax loolu lépp ay xeetu vidéo da ciy am ay audio da ciy am ay page da ciy am page yi mooy page yi mooy bi leen di enquête euh, enquête gendarmerie ak bi ñu demee bureau doyen des juges loolu lépp mën na ci mais bu ñu dégg vidéo vidéo rek wala fu ñuy projet vidéo rek jàpp ne vidéo Adji Sarr ak Ousmane Sonko la c'est naturel tribunal dulu lu kese man ma len jox exemple yooyu rek mais tribunal li ñuy tribunal li ñuy atte loo xam day aaje ñu tek ñu tek audio wala ñu atté lo xamné da fay aaje ñu tek vidéo loolu bu ngeen demone tay ci ñi nga xamanteni tay ci tak der yi euh, dañ la kay tegal dañ la kay tegal boo demone mo xam police mo xam gendarmerie buñ lay enquête ndax leg léeg bu dé da nga def ben vidéo wala da nga def benn audio boo dikkee ñoom ñu am ko dañuy ñëw ñu tegal la ko ne la yow vidéo bi yaa ko def montage la wala du montage tegal la ko na wala noonu audio bi yow yaa ko wax wala nangam nangam loolu boo demee police am na fa bu ñu lay enquête boo demee gendarmerie bu ñu lay enquête am na fa naturellement tribunal aussi dafay am loolu lañ bëggoon a leeral mais du lu bees te matériel la boo xam ne attekat yi dañ koy am ndax attekat yi dañ koy soxla dañ koy yittewoo. moo xam enquêteur dañ koy soxla ñoom tim foo xam ne dañ lay tegal ay vidéo na la vidéo bii yow la wala yow yaa wax lii kon loolu lañ bëggoon a leeral euh, ci mbir moomu ñu leen di sant di leen di gërëm di rafetlu seen ànd ak Bawal Info TV